alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabi rahma wa kashifil umma wa shafiil umma sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al aimma wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi al mbokki jullit yu tedd yi nekk ci gox yu fasantikoo yi ci réew ak ci bitim réew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 jëmee ko ci seen jëmm yu tedd yu sell yi muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa di del siwaat ci kartanal yàlla di sof ak yéen li ñu sosoon ak yéen ci seen xadiisu sabaax bi ngeen baaxoo am rekk bët bu set ci waxtu wi ay nag ñi ngi ci suratul maayida ba tay ñi ngi ci nidaau saamin wa salaasuun xooteeb yàlla bi nga xam ne mi koy xoo way gëm ñi ci téeréem bi yaa ayyuha alladina amanu yi tey ñi ngi ci fanweer ak juróom-ñett nidaawu bii nag mi ngi ci suratul maayida ci aaya quatre-vingt-dix jëm quatre-vingt-treize mooy aaya bi mujj bu yàlla di wax ci mbiram sàngara waxoon na ci euh, ñaari aaya yu ko jiitu woon yëpp boo amee xel settantal aaya la ñëw di xaraamal sàngara waaye ànd ak loola lépp taxutoon ñi bàyyi waaye bii mooy bu mujj bi bi mu ko waxee bu mujj bii nag ki jullit bi yëpp ku ne jullit laa rek jullit ga nekk lu wér ci yow ci nga war a gàddaay butéel bu bon bi nga xam ne ku takkoog moom mu toroxal la la muy njëkk a toroxal ci yow mooy teqali la ak sa xel mi nga xam ne moom lañ lay ràññee yaag bàyyi may diggante doomu aadama mala li nga xam ne mooy màndarga mi leen ràññale mooy xel xel boo ko jëlee li muy tekki lu luxatan mooy alxablu mooy tekki buum mooy buum gi yàlla yeewee nit ki ba du ëpp ba du manki fi mu war a nekk rek foofa lay nekk ci li mu war a nekk rek lay nekk waaye sa buum googu ñu yeewee la soo ko daggee butéelu sàngara bi wala nga daggee ko boon bi wala nga daggee ko dorog bi amul kenn ku la mën a teree torox dorog ak torox ñoo niroo ku takkoo dorog da takkoo torox da torox kabine sa bopp da nekk magam jëmu da torox saw sa bopp ci digg mbedd mi danga torox di feccal say doom yoo xam ne soo toroxutoon bu ñuy fecc nga tere leen ko danga nga torox di wax wax joo xam ne wax ju nusiwut la da torox fafe sa jabar yi sa kër tas da torox gàccaloo sa yaay gàccaloo sa baay gàccaloo famille bi nga bokk yépp boo taqee woo dorog mu yóbbu ci toroxtaane yooya yooyu yëpp ma wax la àdduna la àllaaxira moom ñëwagut danaa dana yegsi moom boo jëlee bon bi moom mu bon loola bon ak bon moom ñoo bokk sa mbon ji fekkee gëggut ci bon am na loo dese waaye bis boo yeggee ci tox bon moom deseetoo ci mbon dara yegg nga ca sommet ba fa gën a kawe ci mbon egg nga fa waaye sàngara si soo ko jëlee la muy njëkk a def mooy jaxase sa xel bi nga mujj di jëf jëfi mala man ngaa ñëw sëyeeg sa doom ji nga jur ki sa biir ba mujj xamaat ca doom yaa bon su ko defee sa doom ji nga ci am di la wax bu ko neexee wax la baay ndax yaa ko jur bu ko neexee wax la maam ndax yaa jur yaayam kenn gënu laa bon ci kaw suuf su ko defee euh, demeet nga yàq sa askan mu jaxase ko naka noonu mu jaxase sa xel mi sa alal ji nga amoon yëpp fayeku soldu bi ñëw war a yore sa kër yore sa yaay yore sa baay nga pasar pasaree sa soldu bi ci mbedd mi nga nekk kuy fayeku ñaari million mbaa ñeent mbaa juróom taxul nga am kër wala boo amee kër mën ngaa xëy ñàkk ko ci benn fan dana jaxase sa xel mi ba nga mujj sa palaasu liggéeyukaay booba nga mujj ñàkk ko ba tànk yeñ la takkaloon muy yu kawe nga xilif say morom nga mujj ñàkk ko ñooñ ña nga xilifoon mujj xilif la ngir mbon ngoo xam ne nekk na ci yow mu jaxase sa xel mi nga kabine sa bopp di ko saw jàllal bi ko boo amul sens mën ngaa fekk sa yaay ji la jur sax nga mujj sëy ak moom man mu jaxase sa xel mi nga saaga sa baay nga jaxase sa xel mi nga saaga ponkal mu la mën a duma nga jaxase sa xel mi di kayang kayang ba oto ya fekk la fa far fil la nga mujj dee fanaan ji àllaaxira kon koo dégg ñu ne bon na waaye mbon nga yegg gut ci boon defe na mbon koo dégg ñu ne torox na toroxtaaneem nga yegg gut ci dorog toroxtaane ga des na waaye bis bu jëfandikoo toroxta maanaam bon rek xegg na ca dayob toroxtaane koo dégg ñu ne alku na te alkane ka yóbbu ko ci naan sàngara rek des waaye bu xasee xegg ci naan sàngara alku na piir ndax wàccee na boppam ci garaatu nite yóbbu boppam ci garaatu mala ci wala xadd karam naa bani aadama la la la wàccee yegg ca suma radannaahu asfala saafilina foofa nag ku fa xasee gu torox nga sàngara nag moo tax boo ko seetee yàlla ñetti aaya ba ñeent la ci wàccee bu njëkk ba dafa ne wa min samarati naxiili wal anaabi tattaxiduuna minhu sakaran wa risqan xasanan inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluuna ma nga ca naxli aaya 67 yàlla ne bokk na ci sama xereñe ak sama yërmande ak sama mën a xéewal ma jox leen meññant yi nga xam ne meññant tàndarma la ak yi ngeen man koo lekk bu ngeen ko xoojee mu mujj nëpp soppeeku ngeen naan ko mandi boole ko waaye gis nga ko nag tuddut ko ba mu paree mu ne sakkaram rek la ca wax door a wax ne mat mat mat mat tàggatalante wa risqan xasanan kon ndeke risqul xasan ak sàngaram mi duñ benn moo tax mu indi waaw waawu xasaf doxale ko ci seen diggante su ko defee kon nag kooku mooy aaya ji njëkk wax ci sàngara waaye ki koy déglu bu dee ab jullit li muy njëkk a yëg mooy ne yàlla de dafa jàkkaarle wërsëgu rafet ak wërsëg woo xam ne rafetut wërsëg wu rafetut bi mooy sàngara wërsëg wu rafet wi nag mooy yeneen yi nga xam ne yàlla dafa ko daganal mu yu teey te waxoon naa la ko moo doon suñ darsoob démb bi bu leen xaraamal yu teey yi yàlla daganal ci yéen yaa ayyuha allazina amanu laa tuharrimu tayyibaati ma ahlallahu lakum ba tax ne yàlla daganal ci yow yëpp boo taxawoon xaraamal ku ci sa bopp du tax mukk mu xaram la ba mooy sa soxna soxna si nag boo xasee taxaw ne ko xaraam nga ma wala nga ne li yàlla xaraamal ci man yëpp daganal naa ko bis ni ki tey te féetewoo sa soxna sa soxna soosa xaraam na la diggante bi dañ koy def muy ñetti fase doo ko mën a takkati lu dul gannaaw baax da sëw ji loolu la imaamu Malik gëm mooy ngiram waaye boo ci génnee soxna nag moom ya ca des yëpp duñ ko jàppee muy dara bu la neexee demal lekk ceebu jën bu la neexee demal lekk ganaar dangaa nekk nit ku ku manqué ko doxadi rek waaye imaamu saafi yow nee na du tax benn atte laxasu ci sa kaw waaye nag boo ci génnee génneewut soxna soxna sa rek lañuy ñuy laxas ci sa kaw xaramal ko doo ko mën a takkat lu dul gannaaw baax na taw kon li yàlla daganal ci yow ngir tinc la nga jàll bi ku tënk ci sa bopp nekkul lu simple soo ko waxee te génneewoo sa jabar sa jabar gi sax dafay mujj xaraam la doo ko mën a takkat lu dul gannaaw baax na taw su ko defee kon euh, sàngara aaya jooju mu ci njëkk a gannaaw si gi ñaareelu aaya ja mangi ci sootu baqara jaaroon nañ ci yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ismun kabir wa manaafiu linnaasi bu ca xemoon doy na waaye mu ne wa ismuhuma akbaru min nafihima loolu kay ku xam xel xam na ne lu bàkkaar ba xëpp njëriñ te njëriñ ba sax duhul naan nga waaye mooy commerce gaag jaay gaag ñi cay liggéey dañ leen di fay dañ cay mën a récolté ak ci xaju kese kon boo dee jullit nga ne naa ko bàyyi bu ñetteel ba mu ne yaa ayyuha alladina amanu la taqrabu salata wa antum sukaara hatta taalamu ma taquluuna kooku dafa xaraamal sàngara ndax bu ne xaraamal naa ci yéen bu leen ko jege bu dul maanaam gannaaw waxtu julli te waxtu julli ni ñu jegee boo koy jëfandikoo sàngara bala ngaa ximmaliku waxtu julli wa ñëwaat moom mooy bàyyi leen sàngara rek Euh, waxtu julli benn rek moo ca soree ak moromam ma um, wala ñaar mooy gexe ak fajar te waxtu woowu bu ngeen ca naanee bu ngeen arrangé dafa war a da war a dem nelaw yi kaasi nelaw ngeen war a naan te bàyyi kaasi sàngara ndax bu ngeen xëyee mën a liggéey beneen ba mooy julleeg suba ak tu tusubaar soree nañ waaye foofa boo fa naanee du la arrangé da waxtu liggéey la fi nga war a dem liggéey nekk sa bureau boo mandee loo fay liggéey rek lay dàq nga mujj torox kon yàlla kenn du moon si xereñe dafa xereñe ni muy waxee waaye waxin wi yëpp boo ko déggee lam ëmb mooy xaraamal naa sàngara ba leen ko rek waaye mu tënk ko ci ne bu bu waxtu julli jege bu leen ko jëfandikoo waaye bu waxtu jullee wane gannaaw mën ngaa jëfandikoo te waxtu julli jege koo xam ne da ngaa màndi tusubaar bala ku ximaliku tàkkusaan jot kon kay diggante tàkkusaan ba tusubaar xaraam na ngay naan ku fi naan tàkkusaan bala ngaa ximaliku kayang kayang ya ala kulli haal timis jot kon kay ndeke diggante timis ak maanaam tàkkusaan yëpp naan fa sàngara xaraam na timis ak gexe boo fa naanee bala ngaa ximaliku gexe jot moo gën a jage moom une heure de temps rek la su ko defee tamit gannaaw gexe boo fa naanee dootoo mën a nelawati te boo nelawul doo mën a xëy liggéeyi boo jullee su ba pare boo fa naanee yow waxtu liggéey wi teew la dootoo mën a liggéeyati bu yàggee ñi dàq la sa place dootoo dundati nga toro kenn du yàlla yàlla dafa dafa xereñ kenn du moom billahi mooy rabbul izzati wal mooy baleen sàngara rek ñaareel bi mu wane bàkkaar ba ca ne ab jullit lépp luy biji bàkkaar war na koo daw bu ñetteel bi nag mooy aaya ji ñi tiim muy yaa ayyuha alladina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijisun doy na min amali shaytaani doy na fajtanibuhu doy na laallakum tuflihuuna doy na muy commencé di wax nag conséquence ke ne innama yuridu shaytaanu an yuqia baynakum al adawata wal bagdaa fi l xamri wal maysiri loo rekk doy na wa yasuddukum an zikrillahi xëpp na wa an salaati mu gën a garaawati mu jeexalee laay gi nag faala antum muntahuuna ndax ba ngeen faala antum muntahuuna sax tekku ndax ba ngeen istifham la di jumlatul xabariya waaye insha yàlla ca namu faal antum muntahoona mooy intahu rek mooy baleen yàllaam lëmm bu ne baleen ngeen war ba kon boo jëlee sàngara juróom benni waxin ci aaya ji wala aaya ile te benn bu ne bu ca waxoon benn ba doy na mu jël yëpp boole ko indil ñu ko waaye ne sàngara carte samp ay bant di yoote ak kii ci aju yëpp jëfi saytaane la min amali saytaan waaye ab jullit war naa daw lu koy jëfloo jëfi saytaane ndax saa yoo mandee jëf nga jëfi saytaane saytaane li doon wut si yow am nga ko da nga saaga da nga xaste da fecci da kabine sa bopp da saw da nga fase sa jabar mën nga sëy sa doom man ngaa wax lu bon demeet yooyu yëpp lu la ko tax a defloo ku la ko tax a defloo saytaane loola jar naa daw muy benn loolu rek waroon tax ñu bàyyi ko ñaareel bi yàlla am lëmm tani buuhu waay waay waay teet leen ko bu ko neexoon mu ne waay waay laa tasri buuhu bu leen ko naan waaye bu ne woon bu leen ko naan fajtani buuhu moo ko ëpp balaa ndax bu ne woon bu leen ko naan kon naan ga rek lañu tere waaye bu la neexee naan lu ko bula la neexee jaay ko bula la jaay lu ko bu la neexee nal lu ko bula la neexee liggéey dem di raxas kaase ñi defee sàngara di ca liggéey bu la neexee di ko xellil nit ñi ak di ko euh, transporter yóbbu fu nekk waaye ba mu ne faj sani bu teet leen ko yóbbu xal ne teet moom yóbbu na jaay yóbbu na nal yóbbu na nallu yóbbu na maanaam liggéey ca yóbbu na lépp lépp lépp lu lu ëmb loola waaye bu fekkoon ne naan gi lañu la tere fay wax ne fala tasribuhu bu leen ko naan waaye li ko noon euh, yi ci des yëpp du ko dugal moo tax mu ne faj sani waaye bu ca xemoon doy na yàllaam la mu ne laallakum tuflihuna leer na man naññ su ngeen baxee sàngara da ngeen texe waaye waaye ab julit bëgg naa texe te laalla ji xarfu taxqiq la ci yàlla beneen bi mu tegal ci ne innama yuridu shaytaanu an yuqia baynakum al adawata wal bagdaa fi l xamri wal maysir te saytaane bëgg-bëggam yëpp mooy mu tàbbal ak nooneel ak ak mbañeel jaaree ko ci sàngara ak karta te foofu ñooy ñaari organes yi gën a dëgër yoo xam ne bu ca jaaree rek gañe leen ndax yaa ngi nii boo naanee man nga bañ koo waroon a bëgg muy sa jabar ji dina toggal nga taxaw bañ ko ne ko fase naa la moo tax yonent daan wax ne bu leen may seen doom yi naankatu sàngara yi dañuy màndi fase leen continuer sëy ñoom fekk na sëy ba dagg na bu yàgg ndax boo màndee ci sàngara wala nga tux drogue bi ci àndoog sa xel ba tax nga fase sa soxna sax ci étape booba dañ koy ndax lii dañ la ko tere woon waroo ko woon a jege waaye su fekkoon ne da ngaa naan soow wala nga naan attaaya suukar sa ëpp nga jaaree ca mandi parce que sa soxna si kenn du ko validé ndax li nga naan wala nga jëfandikoo ko lu dagan la nga caa jël lu ëpp rek waaye lu xaraam moom lu toll ni benn tromb wala benn pepp boo ko ca laalee ba sa xel mi faddu étape booba nga fase sa si jabar ji parce que ma dañ koy wéyal kon sàngara seytaane mën na caa jaaree noonu xoola koo waroon a bëgg muy sa baay sa yaay say doom say soxna say mbokk demee mën na koo jaaree ci karta ndax ñii yëpp ma tudd koo ci gañe alalam ngeen songoo te saytaane mi ko ci jaaree bu ca xemoon doy na yàlla ne wa yasuddukum an zikrillahi dafa leen dëdduloo wala tudd yàlla boo xasee mandi fooy tuddee yàlla mos ngeen a dégg ku mandi di jàngal Alquran mbaa mu mandi di téye kurusam ne ma ngay wirdo mbaa mu mandi téye kaamilam ak yeneen ak yeneen mu bu ca xemoon doy na mu ne wa anit salaat su ngeen fi nekkee mandi nekk ca karta ga day waral du ngeen taxawal julli yi waaye waaye kon nag fahal antum muntahuuna baleen ko waaye kenn du ko firee ndax ba ngeen na ko waajooju waxee juum loolu kenn waru ko wax wax yu wax yu juum te ju bon la fahal antum muntahuuna mooy baleen xabariya bi maanaam insha allah su ko defee kon nag ayaat yii le ni ci yàlla waxee waxin wu ne ci benni façon waxin yii benn bu ca nekk jaroon na ñi baxi sàngara waaye heureusement tey la sàngara gën a bëri ci réewi jullit ñi tey la sàngara gën a bëri ci doomi jullit yi ñu koy naan rawatina suñu réew mi tey ñi ngi jël sàngara di ko def ci ay sase di ko jaay ci école yi xale yu am fukki at ak ñett ñii fukki at ak ñeent ñii fukki at ak juróom commencé foofa la ñu commencé mandi xale yu ndaw te dañu am ak yeewu goo xam ne luñ dëkk seen papa lu ñu dëkk ak seen yaay mënuñoo fexe fexe bañ xam ko buñ koy xamaak rek fekk ëpp na ndax dañoo toll jamono joo xam ne yow yarkat bi yàlla la napp ki ngay yar moo la gën a yeewu ki lay yar nag ki yar bu la gën a yeewu bala nga koo yar da nga am problème waaye bu njëkk ba boo gisoon yar yomb ñañ daan ña daan yare ñoo gën a xeewu ña ñuy yar ñun nag jamono ji ñi ñuy yar ñoo gën a xeew ña leen yar mën naa nekk ak yow di tuur boo nekkul naan nite piir doo ko gaaw a xam mën naa nekk ak yow di naan boo nekkul naan nite piir doo ko gaaw a xam mën naa nekk yow di dorog yow boo nekkul naan nite piir doo mën naa nekk ak di njaalo nga nekk ak moom lu yàgg bala nga koo xam rek fekk ëpp na te doo ca mën a ci dara dara dara su boobaa danga dem ba drogue bi ak euh, maanaam sàngara si miin ci deretam jaxasoog moom nga xam ne pour dindi ko dafay nekk loo xam ne lu jafe-jafe la dana toll état boo xam ne bu naaj wi tàngee sax mu màndi même bu naanu bu nit tollee foofa nag jéem koo dindi dana nekk lu jafe-jafe jafe-jafe xam naa ne tey waajur yi may déglu ku leen ëpp problème ki ji jamono ji amut da nga fiy nekk liggéey am sa teraanga ñi weg la nga nekk ku baax am personnalité ci famille bi am ko ci mbokk bi am ko ci dëkkandoor gi waaye ndeketoo bi nga koy xam da ngaa màggaleegut bis boo xasee màggale rek sa doom yu bon yooyu dem xawi sa sutura yaa gënoon a tekki ci famille bi gën cee baax ñi gën la cee fonk ngay joxe xalaat waaye tey say doom a gën a bon ci quartier bi gën a bon ci famille bi mënatoo mënatoo waxati mukk doomi jàmbur ya dara yaa ngeeg doom yuy doroge wu yaa ngeeg doom yu yoo xam ne dañoo ëmbal yaa ngeeg doom yoo xam ne dañ leen a ëmbal yàlla musal ñu ci yaa ngeeg doom yoo xam ne dañuy tux yaa ngeeg doom yoo xam ne dañuy naan te yooyu yëpp dañoo ñëw ngir xaw xawi sa sutura te ji jamono yi ma tudd ku ci mucc yàlla la ci musal waaye duwul sa góorgóorlu duwul sa farlu farlu goo ca def bu foo def nga dara am na ku la ko ëppoon lum def ta taxul mu am benn résultat kon yàlla mi mën a dimbale yàlla ñu yàlla doollee dimbale ñun ñëpp ci suñu njaboot te nag waajur wu ne alalam piir mooy njabootam bu njabootam yàqoo rek pour moom li ma xamoon lépp yàqu na ndax li ngay sonn lépp mooy bëgg am yéene su ma ko bàyyee sama njaboot ñi man cee nekk suturu si duñu am benn problème njaboot goo nag bu ñuy yàqoo rek yow sa lépp yàqu na ci kaw suuf yal na yàlla musal mu ci njaboot gu yàq diine te jamono ji tuuxkat yi tu ñuy tux boor kilifa yu bari sax mu fiñ ci bëri na ku ñuy topp ma ngay borog yow bëri na ku ñuy dajalee hadiya bu bu xaalis ba dajee mu dem jëndee ko sàngara naan ko xam nga ne ko kenn gënu koo bon kenn gënu koo yéeg ñàkku nit ñi foog ne yaa leen gën a jege yàlla ñu dagale ko jox la ko nga dem jox ko jigéen tëdd ak moom nga dem jox ko maanaam eh, jaaykatu sàngara ba naan ko jël ko maanaam def ko dorog sa maam yi liggéey fi diina ji lu ne def nañ ko ci lu baax nga ñëw nekk ab doom wala nga nekk sët bokku ci ña gën a ñi ñi xormaale la sa maam rek yow moomu kenn gënu laa bon laa xiis kon loolu koy bàyyi xel moo tax kon waxin wii yàlla waxi boo gisee mu waxee ko jamono ji yàlla yoon yonantu bi arab yi ñoo gën a bëgg sàngara senegal yi ci ceebu jënu midi ceebu jënu midi nag ni ko sénégalais yi bëggee nu ko raw la arab yi bëggee woon sàngara booba nag yàlla wóor na ko naññi ne bu xëyoon ne xaraamal naa sàngara bu leen ko jegeeti ñëpp ne ko d'accord nañ ne ñun tamit xaraamal nañ sa diine ji boo yeboo yóbbu ko ci ñeneen waaye ñun sa diine ji mënatuñ ca dara kaasi sàggara yi moo ñu gënal sa diine ji yàlla nag ci xereñam ak ci man doxalinam muy wane sàngara bon ya benn par benn ñu koy xoolal seen bopp benn par benn di ko xoolal seen bopp di ko bañ wan leen yàq gi muy yàq seen alal ñaareel bi mu wan leen yàq gi mu yàq seen santé ñetteel bi mu wan leen noonoo gi nga xam ne mi ngi koy bijj ci seen diggante ci bañante gaag soxorante gaag liggéeyante mu wan leen xeex gi nga xam ne ñi ngi koy tuurante deret te dara yóbboowul leen ko ludul sàngara fi ñi koy xool par benn di gis mbon nga par benn ba mu gi ñoo ko njëkk a buddi bañ ak sàngara ga ci seen xol ya laata yàlla di ko wàccee moo tax ba mu ko waxee rek ñoom ñëpp ci ñetti état yi ñu génn ca fekk Sayyidina Omar a ngi sax rek ne yow yàlla bayin lana fil xamri bayaanan safiyan yow yàlla yàlla nga ñu leeral ci sàngara yàq na suñ xel yi yàq na suñu alal yi yàq na suñu wàllu yaram yi yàq na suñ mbokk gi yàq na suñ xaritoo gi na suñ pénc mi yàq na suñ kàndoo gi maa ngi lay ñaan yàlla nga ñu leeralal ci sàngara leeral goo xam ne dootuñ ca amati benn lam-lame yaay wala sam laa bu salaata baax na leer na laa bu salaata dégg nañ ko waaye daal bëgg nañ lu gën a leeraat ndax ñi seen xel yi lëndëm dafa bëri bu defee tamit li nga ñu wax ne eh, maanaam yasalunaka anil xamri wal maysiri qul fihima ismun kabir baax na dégg nañ ko waaye daal bëgg nañ lu gën a leer waaye keroog ba i yaa ayyuhal lazina aamanu innamal xamru wàccee ba yàlla di wax ne fal antum muntahuna Omar ku dégg balaaxa la xam na ne fal antum muntahuna mooy intahu rek baleen ko ci la Omar ne intahay naa yaa rabbi bis ni ki tey moom baxi nañ sàngara carrément dutuñ ko jegeeti te ka jooju li ko tax a nu ibnu mooy nettali mu ne sax dubnu abi waqaas mu baax moomu ngeen xam mu ne ci man mi ci la aaya ji wàccee benn góor ci lansaar dafa defar ñam arab yi dañoo baaxoon ku ci tukki loxom jot gannaawam bu ñëwee rek togg ay ñam xooyi mbokkam mu wooñu ñu ñëw ñi lekk ba suur mu teg sàngara si ñi naan màndi ba ñu paree nag commencé di puukaree wante ñun diggante ansaar ak quraysh ñi ne ansaar a gën al ansaaru xayrun min quraysh waa quraysh taxaw ne quraysh moo gën ansaar benn góor yëkkati benn ŋaamu gëlëm gu dee dóor ma ko man ki sama bakkan muy nacc ma dem ci yonantu bi sallallahu alayhi wax ko ko foofa la yàlla wàcce aaya jile yaa ayyuhal lazina amanu innamal xamru wal maysiru wal ansaabu mu nekk nag dernière étape ci wàllu sàngara dootoo gisati aaya bu ko leeralee nii ak aaya buy waxaatati ci wàllu xaraam ak sàngara ak li ci aju ndax lii dafa doy sëkk yàlla def ko étape par étape kon liñ cay jàngee yow mi may déglu sa doom mel noo xam ne néexul la bul xëy rek jàpp ne jikkoom yu bon yi mu nekk yëpp mën naa tey bàyyi ko déedéet naxanteel ak moom par benn rek naxanteel ak moom par benn par benn ba mu xëy bàyyi yëpp yi nga koy naxanteeg moom nag da koy fexe ba buddi moom mu buddi ko ci biir xolam bi bala nga koo jéem a buddi ci cëram yi boo ko boo koy wan mbon nga ak lam ko fa muy mujj ak moom nga koy tegal ay film ña koy def fa ñuy mujj ak nañ meloon ak nañu yàqee seen bopp mu di ko xool ah nga ko ciy waxtaanal bu yàggee mooy dem ba buddi ko ci xolam bi njëkk ngay nangu butéel bi ci loxoom ya boobu nag mooy mooy bi ëpp solo kon naxanteel ak moom ci cigarette ba mu bàyyi ko naxanteeg moom ci drogue bi ba mu bàyyi ko naxanteeg moom ci bon bi ba mu bàyyi ko naxanteeg moom ci sàngara si ba mu bàyyi ko étape par étape waaye boo ne li ma naqari lépp lépp laa bëgg tey mu bàyyi ko moom yow lay bàyyi waaye du tax mu bàyyi loola mukk kon jar na bàyyi xel yàlla sàngara musut koo neex ci pénc mi waaye bi mu bëggee defar pénc mi yëg na ne nit ñi niñ bëggee sàngara ak niñ ko miinee bu taxawoon ne tey tey ngeen bàyyi ko ñi bàyyi ko diine waaye mu koy dindi par benn par benn par benn di leen wan mbon gaag di leen wan yàqute gaag di leen wan la ca aju ba ñu bañal ko seen bopp ba nga xam ne ba ko yàlla yi xaraamal fekk na ñoom ñëpp ñi ngéejuwu ko ba wan ko gannaaw waaye yàlla baat yi muy xaraamalee moo lay daane fay sani buuhu di nga la wax teet leen ko waaye waxut falaa tasri bu leen ko ndax fay sani buuhu moo ëpp balaa ko falaa waxoon naa la ko ndax bu ne woon falaa tasri bu leen ko naan loolu rek naan gi naan gi rek la ñu tere waaye terewut ñu jaay gi terewut ñu jaaylu terewul ñu nal gi terewul ñu liggéey ca terewul ñu raxas bool yaag sarwi ba waaye bu ne faj sami bu rek nag baxut dara dugal na jaay ak la ci xaju lépp ba dugal la yonent bi taxaw xam ne dugal na ko moo tax mu ne jibril ñëwal na ma ne sama borom rëbb na jëmmi sàngara rëbb na ki koy nal rëbb na ki koy nal rëbb na ki koy naan rëbb na maanaam ki ko xenu maanaam ah, rëbb na sax kiñ ko xen yéen taximaan yi ngeen xam ne butéeli sàngara la kaay yóbbul ma ko fële wala yéen njaga njaay yi wala yéen avion yi ngeen xam ko nekk jullit dugg ngeen ci biir rëbb bi mu ne yàlla rëbb na ki koy jaay rëbb na ki ñu koy jaayloo rëbb na ki koy sarwi yéen yenn julit jullit ngeen nekk bitim réew ñeen jox leen ay kaas sàngara ngeen koy sarwi di xeel bi dugg ngeen ci de moo tax mu ne yàlla daal rëbb na fukk ci sàngara nii la ko yonent bi waxee ibnu abbas ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ataani jibrilu fa qaala ya muhammadu inna allah azza wa jalla qad laana alxamra wa aasiraha wa muctasiraha wa shaaribaha wa xaamilaha walmahmulata ilayhi wa baaicaha wa mubtaacaha wa saaqiyaha wa musqiyaha lii imaam ahmad moo ko solo ak ibnu xibaan xaakim andi na ko di hadis boo xam ne bu wér a wér la kon lii bàyyiwul kenn boo yoree taxi waa ji ñëw maa bëgg nga yóbbu ma fii nga xam ne sàngara la nga saf ko ca xaraam na de mi bar nga kaay xenul ma sàngara si wàcceel ma ko fële nga ne xam ne sàngara la boo ko xaraam na de restaurant bi woo kaay nga bokk si ñuy xelli wala mbindaan nga buy raxas boobu maanaam kaas ya wala yow da ngay bokk si ñuy sarwi yooyu yëpp xaraam na de donte ab jullit nga de yëpp da ko war war a teel kon yëpp boo gisee yonent bi wax ko baata moo ko dugal waaye bu noon falaa tasuy boobu moom li ko noon moom kenn dong lay dugal naan nga muy wasaari baa waaye yeneen juróom-ñeent yëpp dañ cay génn yàlla baat yi ni koy xaraamale gis nga ba muy wax ba muy wax njaaloo bu ko neexoon fekk ko ne xaraamal njaaloo rek ko ñor dafay wax ne falaa tasnu bu leen njaaloo waaye dafa ne wala taqrabu zina mu ëpp balaa fa téeméer junne yoon mooy bu leen jege njaalo waaye su fekkoon dafa ne bu leen njaaloo rek waaye waxut bu leen ko jege ah kon nag bu la neexee jox soxna si loxo dara néew ci nga koo jege rek euh, tere hut jege njaalo la tere waaye bu la neexee teg ko lex dara nekku ci bu la neexee ngeen tegante loxo dara nekku ci bu la neexee ngeen taqali ko ni leen neexee moom daal li xaraam rek mooy seen ñaari awra yi jonjoo ko ko mooy njaalo waaye yàlla kenn du moom dafa ne wala taqarabu zina bu leen ko jege bu ko jox loxo fu ndaw si takkookoo li xew léegi bon lool ñëw nuyoo ci bureau nekk jabaru jàmbu mbaa nga nekk amaguloo jëkkër waaje ñëw nuyu la akolaat la waaye moo tax corona bi baaxoon na fi de baax na ci côté booba de yooyu yëpp bam ñëwee dàq na yu bon yooye nga xam ne lislaam dafa ko tere ci diggante góor ak jigéen ñi koy jegeante waaye gis nga ko ba ko yàlla tere ñi bañ corona bi ñëw tere leen ko ñoom ñëpp ñu wane gannaaw kon yooyu yëpp lu bon la yàlla kenn du moom ñim ko séq ak la xam ci seen xel yeeg ci seen ñor yeeg ci seen mën a taawil yeeg yu kenn xamul moom bu ko defee nag kenn ku ci nekk niñ koy taawile waaye day indi baat boo xam ne kenn mënu koo taawil lool laxas laxas mu dugg ca wuteeg ko constitution yi nga xam ne moom la gaa yi tëral ci seen luwaa kenn ku ci nekk ak niñ ko déggee mën ngaa ñëw boo bëggee saxal saxal boo bëggee dàq bu ko dàq bëgg bëgg a dàq dàq ba boo leen dégloo da ngay wax na ñoom ñaar ñëpp wax nañ dëgg tey boo doon dégg ñiy défendre troisième mandat ne mën naa xam ñi ne déedéet troisième mandat mënta xam ñoom ñaar ku ca wax nga ne ñoom ñaar ñëpp wax dëgg mel ni góor ak siise siise ga bëgg jàmm lool ñaar jotee mu déglu leen ñoom ñaar ñëpp ñi wax kenn ka wax a wax ba waxam jeex mu ne ko wax nga dëgg de keneen ka lay la waaja waxoon ba mu pare mu ne ko wax nga dëgg de ba ñu paree ñoom ñaar doomam jëne ko papa ñoom ñaar ñëpp boo leen joxee dëgg dootoo xamante dëgg mu ne ko wax nga dëgg de ñetti dëgg foo ko mos a déggee mu waaye alquran luwaa yi muy tëral mënoo fexe fexe tapp say tappale mënoo fexe fexe say taawil mënoo fexe fexe maanaam say commentaire ba mën a génn baat ya ndax baat ba dafay dugal lépp lu bokk ca loola dara lu ko mën a génn am waaye bu ne woon bu leen njaaloo rek porte yu bëri xubbeeku lu dul njaaloo foo jàng ñu ne ah, bu leen njaaloo la waxoon rek ñun njaaloo wuñ jeex na waaye na fa wala taqarabu sala wala taqarabu bu leen wala taqarabu sina bu leen jege njaalo de wala taqarabu sina bu leen ko jege su boobaa nag lépp jokkoo ci téléphone ak te soxna si takkoo ko muy wax ngay wax dugg na ci jege njaalo xaraam na dañ ne dañ la ko may mayaguñ la ko nga nekkate ci jokkoog moom ci téléphone ba yëg sa bopp mu yëg boppam te bëri ñu ñu koy laaj lool xaraam na ba jéggi dayo ñàkk fayda mayaguñ la soxna si gëg génne moom di lambar lambar yi nit naan ma man de ñaanal ma ci juróom benn at maa ngi moom ñu ngi génn ma ne ko kon ne war ngeen a sori juróom-benni at génn génnee dox rek te ba léegi duggaatagu leen fa ngeen génnee woon kon de war ngeen a sori mu loolu ñàkk fayda su ko defee yow yaa ngi koy fere ci moom loo xam ne sax mënu ko fere ci sa yaay te mayeguñ la ko xam nga ne ku bon nga loolu lépp dafay dugg ci wala taqrabu zina bu leen jege njaalo lay dugg kon demeet yàlla kenn ñu yàlla fayal boppam kon nag sàngaraam ngoog ak étape bi ma la ci wax tabaarakallaahu li ci aju xam naa boo ma toppee suba ci waxtu wi ma sof ak yow ci sàngara jalgati gi muy jalgati xel wax la tamit sàngara képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo juróom-ñaari mbugal yi nga xam ne mi ngi lay xaar mënoo fexe fexe ba mucc ca boo ma toppee suba ci waxtu wi mooy nekk suñ bopp darsu yàlla na yàlla yóbbuñu ci in uridu ila al islaha mastataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu lay unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di del siwaat ci